mbokk internet yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télé TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm amaat mbégte mu rëy jàkkaarloowaat ak yéen ci Sénégal matin seen matinal préféré ma amaat itam beneen mbégte euh, dalal Ali Sega Camara dootuñu ko présenté yéen a ngi koy bëgg a miin ci télé Sénégal TV muy euh, njiital MPC mouvement pour le parti de la construction nekk itam euh, expert ci wàllu sécurité alimentaire géographe la également Hady Sega Camara maa ngi lay nuyu souligner aussi que ni yaa ngi woon ci coalition Mimi 2024 ba léegi euh, yaa ngi ci. <laughs> maa ngi lay maa ngi lay fay euh, Adja Fatou. Hmm. te di nuyu téléspectatrices yi. Hmm. di nuyu kilifa télé bi. Hmm. Euh, ak mboolam sénégalais. donc di yóbbante nuyu tamit kilifa yu yore tey tey ji muy waxtu ji. mu ñu nekk. réewu Sénégal. Mhm. ah donc euh, di leen euh, ndokkeel. Mhm. te en même temps vraiment donc euh, di leen wax nag na ñu continuer vraiment. ci li nga xamante ne moom la ñu sumb. Mhm. nañ ko fóot ba mu set. justement sumb nañu assise de la justice démb potum biir lañ ko bëgg a def mais pour moo xam ne ñëpp lañ ciy boole muy ay waxtaan yoo xam ni ci diiru benn ayubés dañu ci càmbar justice. xool euh, lan mooy yàqu-yàqu yi jafe-jafe yi également ak liñ ci war a jubbanti ñu jubbanti ko lancé nañu d'ailleurs la plateforme jubbanti euh, keroog jëm ci assises yooyu tey yàqu-yàqu yi ci wàllu justice boo ko doon natt fan la toll. Fatou maa ngi koy rafetlu d'abord parce que secteur bu ne dañ ko war a càmbar euh, seet li nga xamante ni moo ci tilim mm-hmm. ñu dindi ko ndaxte yére bu tilim soo ko boolee ak yére bu set xeetu yére bu tilim bi mooy jël yére bu set bi donc bare na nag ci cadre justice yi ña nga xamante ni vraiment lu ñu def mën a détaillé bare na ci ñoom mais am na aussi ñi nga xamante ne dañoo jub xoj maandu mhm. nekk ay jullit mhm. ragal yàlla mais nag soo déggee ni vraiment euh, li tubaab di wax ni l'exception confirme la règle ça veut dire que donc li fa nëpp moo ëpp li nga xamante ne moo sell kon tey jii càmbar yoon la soo jëlee justice euh, justiciable yi nga xamante ni ñu ngi toog depuis ay at kenn atteewu leen dafa bari mm. mandat dépôt yi dafa bari mais ay affaire yi nga xamante ni war nañ koo mën a trancher yenn saa yi sax dañu waroon a taxawal xam nga jamono euh, soxna Aminata Touré ma confirmé ni que ba léegi ñoo nañ ci bi coalition bi euh, bi mu nekkee ministère de la justice dafa taxawaloon ay maison de la justice bi nga xamante ni yooyu dafa daan def euh, justice de proximité médiation mm-hmm. médiation dafa am solo. am na yenn woon na dossier yu bari. au niveau des tribunaux parce que yu bari foofu lañ ko doon lijjantee. je me rappelle très euh, lancement mais li ci bare magistrat yi ci bare. bu nu ñëwee dañuy xool dossier yi nga xamante ni moom la ñu war a toppatoo ñoom la ñu war a jàllale ci ju ci jugement buñ ko kiiyee rek quoi dañuy dem tëddi seen kër xam naa ñu ci bari mais lu tax alors que dañu war a les jours vraiment nekk sëgg ci dossier yooyu. déblayer leen ba mu normal mais ñu ci bari ils se tournent les alors qu'il y a énormément de donc de dossiers mais ils font semblant de travailler donc suñ ko waxulee nag vraiment ñu nekk naa fekk te loolu dafa war a dàkk ci biir réew mi buñ lay fay danga war a mériter li nga xamante ne moom lañ lay fay parce que impôt sénégalais moom la ñu jël di la fay yow wàccoo ci kaw asamaan si donc doomu aadama nga dañ la ne dénk nañ la ay dossier nga dem vraiment jaar ci yoon ak xel bu bu mat sëkk c'est vrai que doomu aadama matul hmm. mais da ngay def sa kéemtalaay kattan ba ba ngay atee hmm. ëllëg nga bañ a am problème de conscience mais am na yenn maté yi nga xamante ne buñ la ko commandité naan la waaw lii vraiment donc defal ma lii pour que vraiment donc diw nga sànk ko ñaata doomu aadama la ñu faagaagal ñaata famille la ñu yàq ne. sukkandiku ci justice. ci kaw lan nga ne justice ngay def te loolu du yoon teguñu ko fenn donc foo loolu moo war a génn complètement ci justice corruption bi ci nekk jéggi na dayoo parce que je me rappelle qu'en 1993 man mii sama jëmm bopp j'ai mené une enquête sur la justice et sur la police. ah oui. et au niveau du commissariat donc euh, central j'avais rencontré l'actuel euh, enfin un des commissaires actuels euh, donc. Euh, di dëkk ñaay cokkeer euh, du ma ko tudd mm-hmm. ma abordé yenn questions yi dafay reetaan xam ni il était commandant mm-hmm. donc ci biir justice bi c'était le même phénomène donc il faut que yooyu yëpp set et d'ailleurs je vous l'annonce actuellement il y a un très grand mouvement donc de, de, qui est en gestation Euh, contre l'injustice l'impunité la concussion la gabégie et la corruption dans la cinq justice. thématiques non dans dans tous les secteurs donc de ce okay. pays à commencer justement par les gouvernants te loolu nguur gi fi nga xamante ne moo ñëw léegi nii na fexe ba loolu ñu dëgëral ko parce que ñoom ñooy nekk vraiment donc seen seeni alliés dans la société civile pour débusquer yenn yi et exiger à ce que la justice soit faite et à partir de ce moment le gouvernement a libre mains libres personne ne pourra vraiment que lii ay euh, chasse à la sorcière la mun da nekk réew mi fu mu toll nii dañu war a jël parce que la sociologie des organisations dafa ne il faut sanctionner sanction mooy lan ku def lu baax ñu ndàmpaay ko ku def lu bon ne ñu sanctionner la ña nga xamante ni dañoo dañoo gruger suñu sunu sunu alal ñooñu yëpp. au nom de la justice et au nom des justiciables, ils doivent rendre compte. À commencer par le premier, donc de, le premier des anciens Sénégalais, le, premier, le, le, euh, le président Macky Sall. Il doit venir ici, de son propre gré mu def ko bu ko defulee ils doivent utiliser la valise diplomatique pour l'amener au Sénégal. jëli ko indi ko. alors tey euh, corruption bi nga wax ci wàllu justice. Euh, naka la ñuy def ba mu jóge fii naka la ñu koy xeexee parce que du tey la ñu ko mus a dégg euh, des acteurs wax nañu ko des justiciables wax nañu ko mais ba léegi les choses restent en l'état naka la ñu ko war a mun a xeexee. xam nga tax nga non seulement mesures yi da nga koy da nga euh, mettre en place afficher ko fenn fu ne. ñëpp xam ni lii mooy mesures yi yii ñooy mesures mesures yi bu ko sénégalais dañ ko war aussi vraiment diffuser y a les communautaire communautaires y a les télévisions en ligne y a plein d'autres médias yi nga xamante ni foofu lañ koy jaaree donc nit ñi waxtaanee ko ci place publique yi am na solo ba ñëpp mu intérioriser ko citoyen am sañ-sañ parce que citoyen bu def délation te fekk ni vraiment donc du dëgg dañ la war a sanctionner dañ lay tëj mais lii nga xamante ne nag mooy dëgg aussi nga génne ko teg ko ci place publique bi fi ñu koy réceptionné aussi ñooñu dañu war a gaawantu vraiment régler mbir mi enrôler ko teg ko à partir de ce moment mais l'Italie l'avait fait je sais que après les gens ont commencé à assassiner les juges et cetera Borsellino et cetera hein euh, opération Manopolite mais loolu yëpp mën nañ ko fi def ay kuréelu citoyen yi nga xamante ni contre l'injustice contre vraiment donc la la la la la la euh, nu mu tuddati la gabegie contre euh, la corruption et contre la concussion contre euh, nu mu tuddati l'impunité parce que impunité moo bari moo tax ku ne man yenn saa su ma ne nit ñi mais ah, waaw seetaan nañ la ak Adja Fatou ba ngay wax ni vraiment sa sama loxo dafa set et cetera donc je n'ai pas voulu ce ceci et cela mais da nga waroon a def comme ñëpp comme sénégalais ma ne pourquoi je dois faire comme tous les autres sénégalais qui sont mal intentionnés ñi nga xamante ne dañu bëgg vraiment réew mi suux man bëgguma sama réew suux la ma fay jël. ñaata doomu aadama laa koy la laay xaañ. seeni jàmm pour kan pour man ak sama njaboot bu ndaw bi lu ko fi jar. Hmm. nga xam ne loolu yëpp boo ko fi jëlee fii nga koy bàyyi aussi parce que bés dana am di faatu. fii nga koy wàcc soo ko yàqulee nag fii nga koy wàcc. et après justice nag c'est encore plus grave. alors c'est plus donc à de ce moment je pense que loolu non seulement donc mesures yooyu dañ koy diffuser mais aussi qu'on mette en place donc des co des comités de réception euh, donc de ces de ces complaintes voilà. bu def lu mel noonu mais nit ñi <laughs> ñu dénoncé la soo defee ay lenteur ñu xam ne lenteur bii lii li nga ci jublu c'est délibéré. eh bien c'est délibéré li nga ci jublu. aussi dañ leen dañ leen di indexé lu bëri ci loolu. mais c'est ça qui n'est pas euh, correct. un grand avocat maître Ciré pour ne pas le mus na leen a. indexé ci ci sama. waxtaan benn bu ma sekkoon ak moom muy wax ne liggéey bi niñ leen ciy xaaree ak niñ ci war a taxawee defuñu ko et parfois dafay tax ñu bëree bëri des ci kaso yi ba yenn dossiers yi sax di réer ça aussi c'est problème. mais loolu laa lay wax ni euh, Adja Fatou. nii nga xamante ni euh, buñ la buñ la indilee dossier si c'est pas des dossiers politiques wala yu yu rocambolesque yi nga xamante ni médias yi wax nañ ci mais yi ci des yi vraiment. dañ koy c'est comme ils s'en tamponnent. et c' est pas leur problème c' le cadet de leur souci que ñooñu donc qu'ils en prison c' est pas leur problème mais da nga war a xalaat ne que doomu aadama ak bakkanam mbindeef bi nga xamante ne moom la yàlla gën a fonk mu nekk alalu yàlla moom nga bëgg a toroxal noonu mais c' est parce que nit ñi da seen ngëm-ngëm dafa des et en même temps yërmande ci boppam la ñu amul ci seen deret te loolu nag justice bu àndulee ak yërmande dafay nekk criminalité c'est un acte criminel quand un juge se permet de condamner quelqu'un par négligence de son dossier parce qu'il l'a condamné bàyyi ko foofu je ne parle pas donc d'annoncer vraiment donc la condamnation à proprement parler mm. mais yaa ngi yore dossier bi nga négligé ko wàcc ko ci kaso ce juge-là n'est rien d'autre qu'un criminel. il n'est pas meilleur que celui-là qui a été interpellé la ñuy nekk. mais absolument bëri nañu tëdd ay ati leen àttee seetal jamono ji nga xamante ni euh, ce ce ce ce euh, les excusez-moi de l'expression les cochonneries que Macky Sall a fait ici en prenant vraiment des milliers et des milliers de Sénégalais ñu lay interpeller parce que vraiment danga am photo Ousmane Sonko ci sa téléphone wala da nga tàkk benn bracelet Pastef et on te prend justement on te met en prison ci kaw lan. les citoyens n'ont par le droit donc d'avoir le choix yu mel noonu combien de familles ont été vraiment brisées ici manifester wu tuuti rek quoi donc nga jàpp ne vraiment non alors que c'est un droit constitutionnel donc salfaañee li nga xamante ne mooy loi loi yi nga xamante ne teg nañ ko ci yoon ndeyu sartu réew mi moo ko maye nga ne loolu kenn du ko jëfandikoo. alors tey lan la ñu mun a xaar ci assises yi ubbi démb jam ñaajo alors luñ ci mën a xaar. dégg nañu par exemple seen leader Aminata Touré mu ne euh, politisation bi tam dafa war a jeex. falaa jëm voilà. falaa jëm parce que justice kenn waru ko politiser. c'est la dignité des personnes des familles ña nga xamante ne la concerné hmm. jël. dossier parce que celui la il ne me plaît pas c'est mon opposant nga ne non danaa ko faagagal comme ni ko Macky Sall defoon fii kenn du opposé wu ci samay idée kenn du opposé wu ci samay sama samay samay acte mais boo poser un mauvais acte dañ dañ ci opposé wu systématiquement te man kooku moom ne ma ñëpp xaar ci loolu si je vois quelque chose qui n'est pas correct venant même de ce régime la ñi nga xamante ni bokk naa ci ñu leen fal eh bien donc je leur dirai s'il ne change pas on s'opposera parce que moomuñu kenn ñu kenn loolu am na solo donc il faut systématiquement que la politique cesse vraiment donc de commander hmm, la justice la justice. pour loolu. am il faut l'indépendance donc de la justice doit être vraiment commencer par l'indépendance des magistrats okay. d'abord magistrats yi ñoo war a mën a yore seen bopp xam ni li seen sañ-sañ ci kaw yoon lañ ko war a teg. lii nga xamante ni yoon may na leen ko loolu la ñu war a def lu leen yoon mayul nag waruñ ci dugg. waruñu nekk di combine ak politicien nécessité la président jóge ci conseil supérieur de la magistrature mais dafa war a tegeeku foofu waxuma la sax jógee dafa war a tegeeku foofu complètement mais moom mi ngi wax ne nañu moytu itam dem ci république des juges mais non xam nga bu fekkente ni man maa nekk président tey ji mais les juges on doit les les élire les élire comme ça se fait aux États-Unis ko defee juge da ngay xam ne nii yow sa mandat bi ci peuple bi nga ko jëlee donc bu ñu mënulee def lu mel noonu il faut que donc euh, justice ci biir bopp ci ci biir euh, magistrats yi entre eux ils se connaissent qui est plus compétent que l'autre nañu choisirante il y aura que juste un décret de nomination et c'est tout mais le choix ne viendra pas donc d'un homme politique futur le président de la République warul nekk mm-hmm. parce que on parle quand même donc de pouvoir judiciaire y minimum vraiment donc d'indépendance bi nga xamante ni war nañ ko yore mais su fekkente ni lépp. Mm. président de la république président donc du conseil supérieur de la magistrature loolu mu doon. ministre de la justice nekk vice président. alors mais en même temps le ministre de la justice moom moo moo commandé parquet et toutes ces réformes là doivent être faites. pour que loolu mën a dégg de poursuite ou de ne pas poursuivre. absolument donc quand je ah, j'entends souvent donc le non. Mm. il faut que mbir yi leer ku fu fu fi nga fi nga nekk li nga war a def yoon te teg la ko citoyen xam ko donc état ci boppam moo war a jël ay matuwaayam dimbale ay citoyen pour que ñu mën a xam parce que quand la loi dit nul n'est censé ignorer la loi mm. yow loi bi ñu ngi ko bind ci nasaraan ñu ci gën a gën a bari ci biir réew mi jànguñu ko yow nga ne nul n'est censé ignorer la loi nga koy appliquer ci kawam ci kaw lan li mu xamul mais yàlla ci boppam dafa ni ki nga xamante ni vraiment lu mu def te fekk ni xamu ko. mais kooku moom kenn du ko topp ci dara. mais bés boo ko xamee nag nga xam ni vraiment yaa ko tey. Mm. donc loolu il faut que mu am carrément ay kuréel yi taxaw te nguur gi moo leen war a taxawal wala jàppale leen bu fekkente ni citoyen jël nañu initiative ñu jàppale leen ñu koy wasaare ci biir réew mi loi dañ ko war a wasaare citoyen vraiment donc am instruction mu am mu leer ci seen bopp mën nañ ko tënk ci kaw ci ci biir kàllaamay réew mi dugg ci biir rajo yi def ci ay émission nit ñaa ngi dégg déglu daañu mën a xam exactement constitution bi la ñu tàmbali dem ci yeneen loi yi muy code des obligations civiles et commerciales code de la famille code de code des procédures pénales code pénal yooyu yëpp dañ ko war a xam donc luy ak ak yelleefu doomu aadama. loolu yëpp nit ñi dañ ko war a xam. donc kuréel yooyu dañ war a taxaw. d'accord alors ba tey pour des ci wàllu corruption dégg nañu aussi coowal corruption bu soxal police ñaari policier particulièrement yu nekkoon ca Kébémer arrêté woon doomu ancien ministre Mansour Faye mu yoroon euh, xaalis ay millions euh, ñu ne mu ger leen euh, ci trois cent mille francs policiers yooyu dañ leen mujjee relevé mais loolu mun nañu ne c'est la face visible de l'iceberg tey coowal corruption aussi mi ngi ci biir takk der yi ñu ngi leen koy waxal euh, fu ñu war a duñ fa contrôler kooku yoroon xaalis euh, li tax ñu naroon ko jàpp ba mu jógee mu ger leen ñu bàyyi ko ñoom ñoo ko xam euh, ban lecture déjà nga am ci cas bu mais globalement la corruption dans les rangs de la police et de la gendarmerie. am naa ci lecture yu bare mais dinaa jël ñett. ok. benn bi comme dem nañu ba wax ni doomu Mansour Faye doomam bu jigéen. bu toll lu toll ni vingt et un millions. fan la ko jëlee ndax ab liggéeyam mook ko jox loolu dañ ko war a saytu bu ñu d'abord tàmbalee ci policiers yi ñu corrompre nañu d'abord ki nga xamante ni xaalis boobu mu yore muy circuler ak moom et c'est interdit vraiment donc de circuler à de telle hmm. loolu am na solo il faut que loolu ñu illustrer ko. ba mu jeex takk. Euh, lii di ger ci biir police boobu ci takk der yi dafa yàgg léegi dañ ko sax institutionnalisé xam nga yenn saay bu may dem cees damay jël ay wargaay ndey parce que sama jamono ji nga xamante ne sama oto dafa nekk garage mm. donc damay jël wargaay ndey dem mais da ngay gis xamee nañu ràññee nañu oto yëpp yuy def wargaay ndey mais ci péage bi euh, dès que oto bi ne tel fël la rek ngay gis gendarme bi ne ko def nii hmm. il faut aller vraiment de l'autre côté chauffeur bi wàcc nga gis mu jël benn billet et cetera dem di ko joxe yan saa ma intervenir ak sama carte hmm. wax leen nii lii laa ma sa doon ci biir réew mi hmm. te damaa yàkkamti fi may dem bu fekkente ne amu leen lu ngeen di reprocher bu fekkente ne contrôle de routine la y a pas de souci dañ may wax na trans transport illégal ndax réew mi mais pourquoi duñ leen régulariser par des actes très simples organisez-vous en association de transporteurs vraiment donc euh, interurbains mm-hmm. et puis ñu wax leen këyit ngeen fay seen patente ngeen fay seen kii licence ngeen fay seen seen lii loolu xaalis boobu yëpp dafay dem ci biir keesu état bi au lieu que des gendarmes ou des policiers vraiment prennent ça ñu koy dugal ci seen poche fu ñu ko teg te affaire bi dañ nga koy gis ba ci biir koor gi pour te dire rusuñu jël lu lewul yóbbu ko seen njaboot ban réew lañ nekk et ils que ça cesse. et c'est un système tu salaire rodé, un salaire dañ lay fay bu fekkente ni salaire boobu doyu la demal defi leneen nga arrêté mais xoolal chauffeur yooyu ci war gaynde yi dix huit mille francs la ñuy encaissé bu ñuy dem nga war cee jënd carburant. war cee fay péage après à chaque passage. il faut que nga am li nga jox vraiment donc à benn takk der mais loolu fu ñu ko teg ñooñu lan la ñuy gagné de leur existence donc dañuy dew ba bëgg a dee alors ce qui fait que il peut même les pousser vraiment donc à faire des accidents parce que il font vraiment quelquefois tu vois les ces chauffeurs la font cent trente cent cinquante à l'heure soo soo leen waxalulee nga menacer leen ci biir alors il faut continuer comme ça mais un pneu peut éclater et le véhicule se retrouve dans les décors combien de personnes vont mourir à cause du fait que ils veulent gagner vraiment donc beaucoup de d'aller et retour lié au système de corruption parce que dañuy liggéeyaaleel ah, ñaata takk der ngay fekk vraiment mu ngi jënd oto alors que seen salaire mayu leen ko ci kaw lañ ko lañ ko ba dans la circulation générale à l'intérieur du pays tu trouves vraiment donc ay tontine la ñuy def ku ñëw rek da nga foofu ngay dem verser ji boo demee rek quoi nga fekk ji benn waaye bi nga xam ne dafa taxaw fële wala nga def mu def jamono ji mu defal la ko Wave wala Orange Money et puis tak tak bon waa ji ne la ñu bàyyi chauffeur bi jox ko ay kéetam dem mais faatuma ma rappelé la am na ñaari cas yi nga xamante ne daloon na ma fii ma mos jamono yooyu dafa amoon ay vignette hmm. trousseau bi nga xamante ne falaa dugal papier yooyu lu ma ko yëkkati fàttee ko ci kaw table bi moo dugg à la hauteur donc de la maison du parti jamono jooju je pense que la veille dama jóge woon Gambie ñëw yore woon ay dalasi aussi waaw ah, les cinq dalasi la billet bu xonq la dama ñëw waa ji arrêté ma laaj ma kii te te daf ma waroon a verbaliser seulement ma xam ko ne ma non kii ma ne ok léegi laal nga bëgg mu ne waaw mais joxel dara ma ne ko non je ne peux may daggal ticket bu fekkente ne loolu da nga may verbaliser et puis voilà donc su vais payer mu ne waaw moo motard bi yore carnet bi quoi nekku fi ma ne ko bu fi nekkulee nag man da ma war a bàyyi ma dem. <laughs> vraiment. absolument parce que tu n'as pas le droit donc de me retarder il s'énerve il quitte quoi il mu dem taxaw ci benn côté bi ma dem fekk ko foofu waaw waaw lan nga bëgg tu veux que je te donne combien. damay ah, joxel dara mu ko aha waaw mu ko d'accord mu delluwaat ci biir oto bi jël carte grise bi ñu nga cinq dalasi xam nga dafa xonq danga mhm. ko dugal nii ci biir carte grise bi jox ko ko mu retiré ko quoi donc daal di ko boxoñ ni mhm. et puis voilà donc euh, delloo ma sama carte grise donc non seulement tu na pas l'argent que tu voulais mhm. am na beneen bi nga xamante ni acte bu garaaw sax laa def ah, donc euh, rus naa ko wax fi mm. <laughs> vraiment donc euh, c'est pas que j'ai frappé un policier ou quoi saaga ak yooyu loolu mm. du ma ci bokk ah, dugguma ci loolu mm-hmm. mais euh, li ma ko jox euh, ni ma ko ko joxee mm. donc dafa rafetul parce que pour un citoyen normal donc waroo def lu mel noonu donc j'étais très conscient mais j'étais très énervé parce que du fait simplement que ce ce vraiment voilà nekkul ci yoon waaw alors euh, ñu wax ci peut-être li gën a sax sabab euh, ndaje mi tey waxtaan bi émission bi mooy euh, coowal suuf bu ñu dégg tudd ci président mag ci Sall keroog suñu waxtaan bi fii am na yu bari yoo xam ne certainement xajul woon ci jotaay bi et c'est toujours comme ça d'ailleurs suñu la dalalee du ñu épuiser jamais le les sujets yi ñu gën a waxtaanee mais da nga fi waxoon ci ay njombe ay toj-toj yoo wax ne président Macky Sall Euh, def na ko fi bala muy dem euh, loolu euh, taxoon nga jàpp ne itam war nañu ko indiwaat mu indi ay leeral coow suufu aéroport bu Yoff bi ñu waxee ne aéroport bu Diass pare na dañu ko naroon a tëj mais gis nañu ne dañoo dagg woon ay pàcc yu baree bari di ko jaay alors l'homme d'affaires Doro Gueye ñu teg ko loxo barki démb mais démb li ñu yeewoo ci xibaar mooy dafa ni président Macky Sall moo ko joxoon ay bo yu mu ne da jaay ngir dox ay mission secrète man personnellement bi ma déggee loolu yow laa xalaat parce que euh, bëri na yooyu yooyu junj yooyu ci sunu ay échange alors mbir moomu loo ci xam ak euh, loo ci jàpp mën ñu ko ci expliquer. Euh, ay indication Adja Fatou balaa mu fa yegg donc fu ma waroon a daaneel ci wàllum policier yooyu. dañ leen war a sanctionner. d'accord ñii ñu jàpp dans l'affaire oui. mu des ci bopp doomu aadama yi ci biir Sénégal. sont déjà relevés. moom xam nga la boobu leneen la. parce que ce doit être immédiat. Hmm. mooy mesure bi ñu war a njëkk a def li ci des li on doit les sanctionner de telle sorte que mu nekk vraiment un exemple. Hmm. à la face du monde. et de la façon la plus dure. su ma koy wax da ngay dëgg Sénégalais kii bu ko dëkkee réew mi dañu eh, ne non. Hmm. réew dafa war a jóg. tegu moo tax la yàlla ci boppam ci biir alxuraan da koy wax ne ce n'est pas la corruption sur la terre mm-hmm. et pas le sang donc yu mel noonu il faut mu am sanction bu exemplaire mm-hmm. bu kenn mënul fàtteel ma mm-hmm. dellu soit maintenant ci kaw booy yi ku am droit pour jaay ko octroyé kenn du ko jaay. waroo ko jaay koy octroyé. Hmm. affecté à. titre foncier. Hmm. c'est affecté à une à une utilité bien déterminée. Hmm. pourquoi nga war koo jaay. du ma bett su Doro Gueye waxee ni makisal moo ko ko sant du ma bett parce que waa jooju dafa jàppoon ni moom mooy yàlla ci kaw Sénégal makisal Sall loolu la jàppoon boppam. donc lépp li nga xamante ni ñaaw ñaawteef la et bu koy def c'est avec un sourire narquois la koy def je te rappelle Fatou mooy jël téléphone bi di woo ay gouverneur te gouverneurs yi may dégg nag war nañu mu koo seddal di leen woo ay préfet laaj leen situation bi bu ñu tolloo ci seen euh, barab ba seen zone ba seen tund ba buy raccroché saaga nday la leen di wax nañ ko def sénégalais maa ngi jéggalu nag ci kanamu sénégalais yëpp ñaf leen seen ndey lay wax. Hmm? maa ngi jéggalu nag. pour ñu dal ci kaw askan bi. absolument ba may dégg nañ fi ne préfet ne gazé la presse jamono yi coowu sun ko loolu moom dégg nañ ko. mais alors donc ces gens-là aussi se sont pris comme vraiment donc le euh, donc le nombril du monde maanaam ñoom ñooy jumbaxu àdduna bi. donc dara du leen dal ñoom ñoo nekk au centre donc lu leen neex ñu def ko parce que au sommet dafa am ku leen di protéger te moo fi waxoon le 12 le le le 2 avril 2012 ne je ne protégerai personne je dis bien je ne personne mais njombe yi ñaawteef yi reyaate yi luubal yi ba ci terrain wu mais ça me surprend pas terrain aéroport yi moom. terrain aéroport bi ça ne me surprend pas. waaw dafa nekk ay teeru jàmbur yi nga xamante ne dañ leen jëloon ci seen collectivité lébu yi def ko aéroport pour des besoins d'utilité publique bu mu demee ba nga xamante ni utilité publique boobu jeex na ni ñu ko waree def mais il faut ñu jaarale ko ci yoon ña joxoon seeni suuf ñu woo seeni sëtaati sët yaa ngi fi ñu waxtaan ak ñoom mais comme président Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko ñoom yëpp ci impôt et domaine la ñu génn war na ñoo xam exactement lu fa xew te il faut ñu dem ci assise les impôts et domaines dem ci assise euh, nu mu tudd ci beneen euh, corps bi euh, bi nga xamante ni mooy Euh, saytu suuf yi euh, cad cadastre ay ñaawteef yu rëy rëy rëy rëy ñoo fa nekk donc ñoom xam nañu ñoom seen ñaar yi seen loxo set nañu ci li nga xamante ne moom la Sénégalais yëpp dëgg donc set boobu nga xamante ne set nañu il constituait l'exception ki confirmait cette règle de tilim dans leur corps nanu setal seen corps comme euh, roi Tom l'oncle prêtre thaumaturge Euh, Sibilu Mbaye moo nam d'Oussouye qu'on appelle le roi d'Oussouye jox na bale président Bassirou Diomaye fay pour mu setal réew mi mu bale ko ba mu set donc nañu commencer d'abord dans leur propre corps ils ont commencé par la justice donc deuxième état bi na nekk vraiment donc à ce niveau là lépp li nga xamante ni dafa tilim ci biir euh, impôt et domaine ak cadastre nañ ko génnee hmm. et toutes ces questions de terre la foofu la nekk il ne peut pas se passer quelque chose vraiment donc comment on peut immatriculer des terres o nom donc de de personnes di ko nga xamante ne dañ koy jaay di ko jël di ko jaay te nga ne euh, donc ces deux ces deux milieux vraiment euh, euh, qui se qui se chargent des questions édaphiques dans ce pays là xamuñu ko non xam nañ ko donc il faut que seen collègue génne dossier yëpp ñu teg ko mu set wicc on réajuste mu am ay mesures yi nga xamante ne moom lañ teg ñi nga xamante ne ñoo ci muyee aussi ñu sanctionné la et je le dis je le répète s'il ne ramène pas Macky Sall dans ce pays là ce mouvement là va grossir et s'il grossit vraiment donc il finira vraiment par les avaler ñoom les nouveaux les nouveaux euh, de ce pays ils ont intérêt à ce que vraiment euh, situation boobu ak ñi nga xamante ni ñoo def ñaaw ñaawteef fii yëpp ci biir réew mi euh, j'interpelle encore donc euh, la mairesse de Niaguis na gaawantu setal foofu parce que moi je suis propriétaire terrien là-bas. Okay. dans la zone donc de. Victorine Ndeye voilà Victorine Ndeye je l'interpelle na ci gaaw moi je me rappelle bi muy jënd sama bos bi je l'ai acheté avec un cousin qui était un policier donc il est aujourd'hui à la retraite et ce sont les terres de culture donc de ses parents ñi nga xamante ni li mu hérité moom la ma jaay jamono ñi nga xamante ni xeex bi dafa taroon foofu kenn ñemewu fa woon dem. Hmm. Et quand je l'ai acheté, c'était donc des terres en friche. Quand ils ont fait le lotissement, ils se sont permis donc de s'approprier des terres donc de truie, des Au nom de quel droit Et boo demee ñaa gis on te dit ouais la donc euh, madame le maire n'est pas là parce qu'elle était ministre donc il y avait absolument rien qui fonctionne. La commission domaniale s'est permis di def yenn yi nga xamante ni vraiment naka su dul noonu yooyu yëpp dañ ko war a génnee ñu teg ko ci kaw taabal bi man nag sama terre moom dafay leer nañ xaw ma keneen. sama bos yi moom dinañ ko delloo ca fuñ ko fuñ ko war a delloo. mais li ci doy raglu ci mooy euh, bi mu nee président daf ko doon toxloo ay mission secrète yan genre mission secrète ngay séentu entre le président ak Doro Gueye koo xam ne am na fi jamono yële ñu ko tudd ci ne dafa doon joxe xaalis pour que ñu gën a taqal Ousmane Sonko gën ko tuumaal gën ko dugal ci guuta gi mu nekkoon en en résumé. mais xam nga euh, les fonds politiques servaient le plus souvent à ces choses-là moi je suis un homme politique je sais de quoi il s'agit fonds politique yi loolu la woon loolu lay servir mm-hmm. donc dafay am ay situation sa diggante réew ak réew jàmbur mënoo fa yónni une mission officielle mm-hmm. mënoo fa yónni une mission secrète constituée vraiment donc de corps constitué mm-hmm. parce que dañ leen di démasquer même sa agence créer sax mënuñu ko def tu prendre vraiment donc des personnalités simples yi nga xamante ni dañu nekk ay businessman et cetera ils sont vraiment dans ce milieu là wala nga paye ay forces yi nga xamante ne dañu nekk à l'extérieur yow kenn yaay am lay lëkkaloo ak ñoom. Hmm. donc ci fonds politique yooyu nga mën a tibb vraiment donc gérer situation yooyu. parce que au nom de l'intérêt. Hmm. de la nation sénégalaise. pas au nom de l'intérêt crypto-personnel du président de la République mais nag Macky Sall mi nga xamante ni c'est un homme tordu du def leneen lu dul vraiment li nga xamante ni tey jii dafa nekk en guerre contre yow donc lu muy def mooy seet ñi nga xamante ni war nañoo mën a am ay relation ak yow mu jaar foofu guerre leen jox leen lu bari pour que ñu indil indil ko ay preuves yi nga xamante ne moo lay tàqal ci ay lii ak lii ak lii ak lii parce que il a vraiment un mental de tortue c'est pas un homme sincère je l'ai découvert donc au fil du temps okay. l'homme qui s'était présenté à nous au moment où il voulait conquérir le suffrage des Sénégalais c'était un homme vraiment qui montrait une face radieuse hmm. nit ñi yërëm ko wóolu ko malheureusement c'était vraiment plus qu'une vipère il avait effectivement on n'avait pas constaté effectivement qu'il avait une langue fourchue comme malheureusement loolu moo kooku moo ñu jiitee woon pendant douze ans et les conséquences sont là donc lu mel noonu il faut nécessairement que Doro waxagul de il n'a pas pratiquement tout dit Et tout ce qui a été fait doit être mis à la place publique pour que les gens sachent et que plus jamais ces choses-là ne se répètent dans ce pays-là ni mu ko jaay dañu war a perte c'est tout. c'est tout ce qui c'est c'est absolument c'est comme li nga xamante ni li li ñi ñiy occuper suñu plage yi ce n'est pas suspendre vraiment donc les constructions il faut tout raser tous les citoyens ont le droit d'accéder à la mer librement nul n'a le droit d'obstruer vraiment donc la vue de la mer ou d'interdire les uns et les autres pour que ñu bañ ci accéder au nom de quoi plage yi dañ ci war a dem librement plage autorisée ou interdite interdite de baignade ok mais pas interdit vraiment donc de marcher de se prélasser loolu dañ ko war a arrêter et ensuite les bords de cours d'eau dañ ko war a réglementer même les terres de culture au bord des cours d'eau dañ ko war a réglementer il y a des yi nga xamante ne dañ leen war a fixer sur une distance bien déterminée personne ne doit vraiment donc s'approcher donc du cours d'eau parce que yi nga fay utiliser comme pesticide comme euh, vraiment fertilisant et bu hmm. duggaatee ci biir géej bi mu indi ay problèmes ñooñu li nga xamante ni ñoo gën a néew doole ñoo war a gën a jege source boobu ensuite les nationaux ñoo ci topp parce que ils ont des capacités d'investissement et les étrangers viennent après nii la ñu war a réglementer bu ñu ko defulee ëllëg encore ce sont ces choses là qui vont vraiment donc nous éclabousser il faut qu'on arrête et il faut qu'on réglemente dégg nañ tam beneen coow suuf bu impliqué ay euh, anciens pontes du régime Euh, ñuy euh, tudd ku mel ni Cheikh Issa Sall bi jiite woon CDC ak sax ay jege ñaale président Macky Sall finalement foncier bu Sénégal dafa mel ni dafa nekkoon moyen de s'enrichir bu ñi fi nekkoon jiite ñu on peut vraiment tirer cette conclusion. xam nga ça avait commencé avec le président Abdoulaye Wade. ci cité Kër Gorgui c'était une réserve foncière. waaw damel yi kër damel yi c'était des réserves foncières bi parti socialiste bàyyoon fii le régime du parti socialiste dafa waroon am ay poumon vert. oui aéroport nañ fa. absolument pour que ñu def euh, au moins. donc un poumon vert bi nga xamante ni dafay permettre. dëkk bi di respirer oui. mais pourquoi ñoom gis nañu alors. le le le le le le chef du cadastre donc euh, boo ñëwee ci régime bi boo ñëwee rek quoi donc day jël euh, nu mu tuddati la carte donc de la de, de, du pays et la carte vraiment de de la de la région de Dakar mu tegal la ko ne la bon bi place moo fi des bi place moo fi des bi place moo fi des lii leen ci mën a def lii leen ci mën a def mais au yooyu moo war a dàkk cité Kër Gorgui la. Mm-hmm. tout ce qui a qui vraiment donc de l'ancien régime ils ont des maisons là waxoon naa la ko fii. Mm-hmm. te kenn mënu ko dàkk. fuñ ko fuñ ko teg et si vous regardez vraiment donc transaction yi nga xamante ne moom la ñu def pour ñu mën a boobu ak coût foncier boobu du méngoo da gën a ndaw. ci lu ci def président yooyu dañ ci am responsabilité. am ah, absolument Wade ak. Euh, président Abdoulaye Wade ak président dañ ci am responsabilité. dossier yooyu yëpp dañ leen war a si am càmbar ña fa am kër war na ñoo mën a teg. ci kaw taabal bi naka lañ ko amee te buñ ko évaluer ci jamono jooju ñan la toll ak li nga xamante ni moom la ñu fay eh bu fekkente ne am na gap gap boobu dañ ko war a rembourser c'est sans exception. ok alors tey président Diomaye yan mesure la war a jël concernant euh, les responsables pas ñi nga xam ne ñoom la ñu joxoon rek ñu nar a delloo peut-être nar a euh, joxe la valeur normale mais ñii leen ko jox les responsables. mais xam nga. boo defee enquête enquête bi situé responsabilité yi dina am cerveau dina am exécutant servo comme exécutant ñëpp ñoo war a jaar ci ci kees bi non seulement dañu war a jaar ci yoon mais mais dañu war a jaar ci kees bi ñu goxi leen loolu la réew mën a dox à partir de ce moment là l'impunité n'existera plus dans le pays bu fa ne bu amee tamit dina néew lool parce que balaa nga koo def nag di nga xalaataat bu baax ah li daw li dal diw ak diw ak diw ak diw ak diw mais imaginez vous Fatou on vous dit que le président de la République est protégé par la Constitution ça veut dire que donc moi si je sais que je suis protégé par la Constitution dès que je suis président de la République bakkan bu ma neex ma jël ko parce que dara du ma ci fekk ah c'est ça un président de la République on donne les donc d'un pays ne la vraiment donc euh, da nga war a aar bakkanu doomu aadama yow nga ne non damay jël ay bakkanu doomu aadama yi nga xamante ne ñoom laa yilif jël seen alal yàq ko nu mu ko neex nu mu ma neexee def ko nu mu ma neexee maag samay ñooñ qualifier la richesse nationale vraiment donc de de taureau taureau taureau taureau mort maanaam nag bu dee ku ne na nga ñëw jël dàgg li la neex nga yóbbu. eh bien bu fekkente ne c'est ça vraiment donc protéger un président de la République franchement cette constitution là doit être et brûlée. pétition bi bëgg ñu indiwaat ko mu ngi continuer di dem mais ça ne bouge pas encore. mais il faut absolument que ça les lignes bougent. loolu moo war a am te bu amulee nag li ma lay wax nii cette pression citoyenne là va arriver et si ça arrive sa emporte c'est un ouragan ça emporte toujours un régime nokk régime bu bees bi. dama leen koy ñaan nanu fexe ba loolu bañ leen dal. kon bu ñu ko deful mën naa këpp ci seen kaw. mais bien sûr bien sûr. parce que euh, dafa metti trop ci sénégalais yi ak sénégalaises yi c'est intenable. Okay. et les gens ne peuvent pas rester vraiment donc dans le déni de justice pour combien de temps dans l'injustice pour combien de temps dans l'impunité pour combien de temps. ah oui il faut que mu am ay jéego c'est une très bonne chose déjà qu'ils aient commencé vraiment donc ak cambar justice bi parce que après tout ñooñu ñooy rendre justice bi donc il faut que ñi nga xamante ne ñi ca tilim ñu seppi leen dindi leen ba mu ba mu set wicc ña nga xamante ni ñoom la ñu yaakaar ni mën nañ koo def ñu teg leen bu ñu leen tegee ñu soog jàpp vraiment dossiers yi dugal leen ñii nga xamante ni mais ñoo dugg ci tant que un dossier vraiment apparaît il faut aller interpeller vraiment donc les personnes qui sont mouillées dans cette affaire-là. Mais que les cols blancs là, ce sont les plus gros bandits. Il faut les prendre et les mettre carrément donc dans les prisons. Et à partir du moment où on dans les prisons daañu mën a xam exactement xam nga dama lay bëgg a wax benn affaire xam nga président Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko yàlla da leen bëgg lool. Hmm. parce que balaa ñoo toog ci jal ji. daleen leen jaarloo ci kaso ñu xam lan mooy kaso xam nga Macky Sall deful kaso moo tax mu xeeb luy kaso lu ko neex muy tëje mais ñoom ñaari def nañu kaso ak ñu bari ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñoom ñu def kaso xam nañu ce que la rigueur donc de la prison les affres de la prison xam nañ ko léegi bu fekkente ni ñoom dañoo tëb tëb rek di yóbbu nit ñi ci kaso ci maatey xam nga yëfu maatey la donc yàlla da leen njëkk yee ne leen xam leen li fi xew balaa ngeen di jiite léegi comme ñam ngeen xam ngeen lu ci nekk dem leen jiite ngeen jiite ci ay ci kaw yoon parce que doon nit ñi dañ leen seedeel ni kay jullit ngeen te jullit dafa war a am yërmande mais ginnaaw yërmande nag ku def maa nanga nga koy won yëfu maa tey pour que mu sentir ko comme ni leen yàlla jaaralee ñoom ci prison pour ñu xam exactement te def ñu woon dara lii tax vraiment ñu war leen dugal foofu donc mais yàlla da leen jaaralee foofu pour ñu xam exactement lu mu doon guux nañ ko euh, jàll na donc war na noo mën a xam ëllëg du ñu def yëfu maa tey amuñu droit pour def loolu ils na ont plus le droit mm-hmm. yaa ngi may dégg mm-hmm. donc à partir de ce moment ñi nga xamante ni ñoo def lu metti sénégalais lu naqar sénégalais lu yàq Sénégal ak sénégalais yi ñoom dañu war a dem foofu. ok alors yow ak ku mel ni euh, Théodore Monteil euh, damay sawar di leen laaj ci mbiri président Macky Sall parce que ñu euh, ko xam ngeen. bi ñu déggee coowal suuf bi ak li homme d'affaires bi Doro Gueye wax ñu bëri dañ ci am mbetteel ne mais ñun euh, ci yan peut-être yeneen dossier le président bi fi nekkoon euh, dugal loxoom wala taq wala dëgg tànkam wala teg concam yu askan wi yëgul tey su ma la posé woon boobu question lan nga may tontu pour que suba peut ñu bañ a beneen mbetteel. Adja waxtu dina jot parce que maa ngi bind. maa ngi bind. d'accord te yooyu may bind te jii su ma ko tegee fii donc foo may jox la preuve balaa ñuy porter plainte contre <laughs> te preuve yooyu su ma ko joxee preuve yooyu su ma ko joxee léegi dañ koy nëbb. moo tax. parce que am na yeneen yu. absolument yanal à l'appel scandale à l'appel scandale à l'appel yooyu yëpp bu fettee da koy gis. surtout ci wàllu kaaraange réew mi. sécurité sécurité réew mi li mu fi def xam nga junjoon naa la ko ci beneen émission bi passé je l'ai dit na régime bi bàyyi xel lool ci lool soo gisee ni tey jii euh, France ak Maroc di araftu Macky Sall ne ko vraiment génneel ci politique intérieure bu Sénégal interpellé nañ ko. c'est parce que il y a des prémices. ay situation yoo xaw a doy waar yi nga xamante ni ci kaaw ci kaaraange réew mi fa la Macky Sall dugal loxoom donc euh, le régime doit être excessivement vigilant pour éviter qu'il y ait des troubles euh, qui seront portés vraiment qui seront positionnés à l'intérieur de ce pays-là le phénomène djihadiste souvenez-vous amoon na benn jour bi may interviewé sama kër fii mm-hmm. des devoirs de liberté 6. Oui. alors sur la question donc des djihadistes et cetera qu'il était en train de brandir ma ne la c'est pas vrai sur la question des djihadistes nous l'avons averti à temps et lui avons dit ce qu'il devait se faire ce qui va se faire et nan la ci war a jóg waxoon naa la ko te am nay kilifa yi nga xamante ni te jum jamono jooju il était en Afrique du Sud bi may woo benn fajar pour demander ma donc des des trucs des détails j'ai refusé de prendre téléphone moom Macky Sall mu yónnee benn kilifa ne ko voilà demal nga wax ko ni vraiment bon bëgg naa mu expliquer ma au détail ce qui se passe parce que j'étais au courant de certaines choses et les renseignements ne lui avaient pas encore donné ça donc ma rencontré kilifa boobu posé ko ko ci kaw table bi ne ko voilà donc comment il faudra vraiment se tenir pour que loolu mën a mën a bañ a ak ñi nga xamante ni ñoo njëkk dugg ci biir réew mi fan lañ leen di fekk. Donc j'avais un ensemble de renseignements qui mu venaient de l'extérieur. Et j'ai mis ça entre les mains donc de cette personnalité-là qui lui a transmis. effectivement, si vous vous souvenez, am na ñu ñu jàppoon Louga ak ñi nga xamante ne leen jàppoon fii Gueule Tapée. C'était vraiment par le fait que j'ai pu et agir très tôt pour wax kilifa yooyu moytu leen lii mu ngi mu ñëw dal ci sunu réew. les renseignements avaient tardé li mu dem d'ailleurs di liggéeyal euh, le président français am ñu ci gis vraiment un danger yow tamit. mais absolument keroog maa la ko doon wax. ci réew mi mais wóorul ci réew mi parce que quelqu'un qui a géré vraiment tout ce qui concerne réew mi li ci biiram yëpp mu ngi ak moom looy dox di dem di vraiment nekk jaamu beneen président. mais xanaa quand yegg. mais mënul doylu lu mu fi sàcc lu mu fi luubal lu mu fi def yépp milliards ak milliards yooyu yëpp dool mënu mënul am ci moom lu muy dox di dem liggéey ji encore ban liggéey la ban njëriñ la koy lay lay lay la la indi pour Sénégal et c'est un citoyen ordinaire comme tout le monde fut-il l'ancien président de la République qui a accès à des dossiers excessivement sensibles de ce pays juré leen. ki doon diriger la conseil euh, de sécurité. quand même national euh, tous les lundis ou mardi. mais euh, soxna Adja soxna Fatou kooku kenn waru ko mën a pardonner mu dem defit ci liggéey bu mel noonu et waxoon naa la aussi fii ni dans un pays tous les pays sahéliens qui ont été envahis yi fa dugg loxo yi neen lañ fa duggee. te ñu bari génneewuñ ci loxo. ngànnaay yépp dañ ko fekk ci biir mu am réew mi nga xamante ni soraasam yi ñoo doon dugal gànnaay yi teg leen ay cache d'arme comme li fi xewoon ak commando marin dama la koy waxaat encore ma ci insister affaire boobu dañu war a dirigeante enquête boobu ba mu mat sëkk Fatou dañu ko war a def ba mu mat sëkk ñu gaawantu def ko topp affaire boobu. et pourquoi ils sont morts armes yooyu ñu doon topp fan lañ dugg. fan lañ nekk et pourquoi donc loolu ce sont des choses qui me préoccupent loolu dafa dikkee daf ma daf ma dikkee tiitaange mais les nouvelles autorités doivent prêter payer un une très grande attention à cette affaire-là mu leer la mu ca gën a gaaw c'est important pour la sécurité nationale man lépp li ma lay wax c'est l'intérêt national moom laa lay wax du ma la wax leneen. kon tey est-ce que mun nañu ne Sénégal nekkul ci sécurité à 100 pour mais pas du tout on est guetté hmm. on est guetté tant que y a des semblants de bisbis ou des donc des des des des euh, ay réew yi nga xamante ne danoo danoo danoo yaakaar ne que seen intérêt yi régime bu bees bi dina ko faagaagal ci Sénégal on n'est pas encore tranquille et cela m'amène d'ailleurs xëy na peut-être mu bokk ci say question mm-hmm. quand j'ai entendu les gens fustiger le discours donc du premier ministre Ousmane Sonko sur l'homosexualité et cetera mm. mais lan la fi wax lu la nga xamante ne amu fi le Sénégal, on a connu les Magnankasé, on a connu les Khalifa Baye, à Ziguinchor, etc., qui étaient donc de célèbres homosexuels. Ils ne l'ont jamais caché dans ce mmh. Mmh. Sonko ndax ñooñu du ñu woon jamono ñooñu le. leen. ci biir sëñ yi et pour te dire que am na benn kilifa bu bu mag bi nga xamante ne bi mu faatoo bu ñu koy sangu sang mais on a découvert donc des choses en lui. mu mënul xalaat ni vraiment donc kilifa diine la ci ñooñu la bokkoon donc ce pays-là a connu ces choses-là mais c'est inacceptable que les gens se permettent vraiment donc de s'afficher publiquement et de vouloir vraiment diffuser loolu ci suñu biir société c'est des contre-valeurs chez nous. et li ñuy sanctionner sax dans le code pénal boo demee tribunal ce sont les actes contre nature. absolument absolument donc dafa am loi bu ko condamné et je me rappelle un magistrat avait sanctionné vraiment donc leur leur chef organisé donc dans ce pays-là à l'époque d'Abdoulaye il l'a flanqué donc de huit ans donc de prison ferme mu muté euh, magistrat bi dañ ko demandé woon vraiment mu mu réviser mu réviser procès bi mu bañ et je connais bien ce garçon-là mais après qu'est-ce qui s'est passé on l'a muté on continue le muter mais mu ne zen parce que dafa am ngëm-ngëm xam ni moom magistrat la loi la war a doxal ci kaw aussi la nga xamante ni moom la yàlla santaane il faut que situation bu mel noonu tout de suite les autorités prennent il faut même criminaliser ça. loolu laa doon bëgg a laaj. absolument war a dem vers la criminalisation. absolument parce qu'il y a des yi nga xamante ni ñun on peut pas le faire donc dans les pays occidentaux. donc not code civil et puis notre code euh, procédure pénale code pénal ak yooyu yëpp dafa war a vraiment dañ ko war a réviser ñu dugal ci ay actes yi nga xamante ni mooy permettre vraiment kenn bu mu am sama sañ-sañ pour def loolu ku ko bëgg def nag nga dem defi ji ko ci réew moomu nga xamante ni ñoo leen di pousse pour def ko dem leen ngeen defi ko ci réew moomu ngeen nekk citoyen ñooñu nañ leen accorder ay asile ak yooyu y' a pas de souci mais nous nous sommes des musulmans la chrétienté n'accepte pas vraiment parce que tout le monde connaît histoire Sodome et Gomorrhe ma nga ci biir alquran bi ma nga ci biir euh, bible bi mm-hmm. donc absolument si maintenant donc des laïcs se sont permis ou des athées se sont permis de vouloir ériger loolu en loi dugal ko ci seen i su seen i seen i seen i kodu réew bëgg loolu yëpp ñëw ci sunu biir réew yi mm-hmm. mais demal Ouganda ndax di nga wax lu mel noonu en Ouganda Et je me rappelle quand le président, l'ancien président zimbabwéen euh, Robert Mugabe disait vraiment quand Barack Obama était allé là-bas pour demander à ce que donc l'homosexualité soit légalisée, bah, il a demandé si toi tu acceptes vraiment donc d'être mon épouse. <laughs> toi Barack Obama, ouais. tu acceptes d'être mon épouse tout de suite vraiment donc je vais légaliser l'homosexualité donc dans mon pays. Mm. Mais l'administration américaine, les intellectuels américains, les cadres américains, etc., ont commencé vraiment donc à insulter le président Robert Mugabe, de le traiter donc de président fou, etc. Mm. Pourquoi ils l'ont traité de fou Mais un président qui vient, il dit il faut légaliser vraiment l'homosexualité chez toi. Il lui dit mais toi-même, donc deviens mon homosexuel avec moi. Ouais. Commence par donner l'exemple. Et, et, ah, ah, pourquoi nous voir Saga Mon mm. Dieu, que Saga une nation. À mais ça ce sont des choses qui sont pas acceptables donc pourquoi ils s'offusquent bu fekkente ne loolu lu rafet la lu baax la pourquoi donc quand Robert Mugabe a dit ça à le président ils se sont offusqués donc xam nañ ni que loolu nga xamante ne nga doon wax ñaawteef la baaxul lu baaxul doo ko digle lu rafet ngay digle. ok pourtant malgré li ci Ousmane Sonko wax yépp euh, ne moo nar a nekk même le prochain casus belli euh, waa. APR waa opposition bu bees bi euh, am na ci ñu ko giseewul noonu bokk ci Bah Diakhaté un activiste bu wax ne Ousmane Sonko au contraire dafa def la promotion de l'homosexualité ba yëkkatiwaat yeneen tuuma yu gën a garaaw sax euh, jibal ko loolu tax mu nekk ci loxo yoon mais affaire bi dafa mujjee nekk un problème euh, de parti Euh, un problème entre l'opposition et le pouvoir ndax taxawaay bi ci waa APR am. mais je trouve que ce n'est même pas un problème d'opposition donc entre l'opposition et le pouvoir. parce kese la la ci waa APR def à la fin bay wax ne sax. Euh, xoolal ñooñu euh, du ñu wax seeti wax. parce que ce n'est même pas un ce n'est même pas un parti. ok c'est de gangsters avec un pagailleur à la tête à l'époque. Hmm. donc ce chef donc de la pagaille là il est déjà parti. et ces pagailleurs là sont là ils veulent vraiment continuer à semer donc la pagaille loolu mënu fi am lii waa ji def reewande kese la te ku reew lañ war a teg ci yoon loolu nekkul ci ay affaire u article parce que le le premier ministre Ousmane Sonko n'est pas concerné par l'article 80 de la constitution à ce que je sache il n'y a absolument aucune disposition. de article 254. voilà alinéa 2. parle vraiment donc de offense à chef de l'État. Oui. donc okay. il n'est moo ko fa. absolument absolument ouais. bien entendu que donc euh, disposition yooyu am na moo tax ma ne may parler donc de sanction. yëfu reewande la jaay te reewande boobu nag. Euh, tuuma kili tuumal kilifa nga xamante ne tegoo ci tege ko fenn kooku dañ la war sanctionner c'est normal. maintenant euh, ñoom ñu gisee ko ni vraiment c'est un c'est c'est un truc politique ah donc bi muy def euh, déclaration boobu il ne savait pas que lui il était un politique <laughs> donc c'est un politique attaque un politique et eh bien donc on va le régler aussi sur le plan politique il y problème parce que kenn waru ci am rus kenn waru ci rus affaire yooyu daal moom moom kenn waru ci rus bu fekkente ni foo le traiter sur le plan politique on le traitera am na ñu leen gën a dang euh, kon am ci arrestation bi. ak mais il faut il faut l'arrêter l'entendre et fu mu ko teg. mais ku mel ni par exemple jàpp na ne dañu war a dépasser ay arrestation pour euh, offense au chef de l'État. est-ce que Ousmane Sonko n'est pas euh, le premier ministre Ousmane Sonko n'est pas une personne humaine il n'a pas de dignité à préserver il n'a pas de famille il n'a pas d'enfant il n'a pas d'épouse. Mm. il n'a pas de parents. sa dignité vraiment donc dañ ko war a salfaañee rek quoi donc mu nekk noonu c'est inacceptable parce que ça ne repose sur rien du tout si ça reposait sur quelque chose de solide oui ah non il faut pas que le syndrome Adji Sarr vraiment continue hmm. à faire jour et que vraiment l'impunité continue moo tax mel ni wax ni vraiment la question de l'impunité dans ce pays la dafa war a dakk su dul loolu foutaise mooy installé wu te loolu mënuñ koo nangul duñ ko nee naa la lii tax vraiment donc yenn duma ko wax parce que simplement nit da xam ne luy oroma am na yenn sax sax danga koy xam ngir oroma nga teg ci parce que yàlla ci boppam ci biir alxuraan da koy wax nii bu leen otti orma nit ñi lii nga xamante ne jarul ñu teg ko ci biti mais lii donc loolu duñ teg ci biti mais kilifa wax ci li nga xamante ne moo am suñu biir réew parce que discours bi yëpp déglu naa ko j'étais pas à l'endroit mais jël naa ko ci réseaux sociaux yi déglu naa ko balaa may balaa may wax ci dara mu fekkente ne am na li nga xamante ni dafa dëngoon danaa la ko wax fii parce que man ragaluma kenn kenn nenuma donc je trouve quand même que tout ce qu'il a dit était correct et c'était encore davantage courageux mm. que benn chef de parti politique bu France ñëw nga nga aborder en premier d'ailleurs la question parce que c'est lui qui l'a abordé en premier donc ne ko lii ak lii ak lii mais c'était très courageux et moi je je félicite je l'encourage à aller de l'avant avec cette situation-là et la meilleure façon vraiment donc c'est de prendre les dispositions li nga xamante ne promettroon nañ ko vraiment donc criminaliser je serai pas vraiment donc le président des homosexuels. <laughs> si je dois être président de la République. en tout cas seen financement moom du dugg taxawaay bi APR am tey nar a wu démarré nañ ko d'ailleurs euh, am na ñu jàpp ne xëy na ñi fi nekk la neex ndax am na nuñ doon doxalee peut-être duñu ko tal. <laughs> mais xam nga d'accord loolu. xam nga d'abord nañu structuré wu d'abord c'est pas un parti je l'ai dit. ok c'est pas un parti. boo créé secrétariat exécutif national jeex na ko donc euh, voilà ana structure yi ana yeneen structure ak responsabilité yi. non c'est pas structure ku leen jiite tey c'est ça le problème donc c'est une nébuleuse un conglomérat donc d'assassins de trafiquants d'influence de de de de trafiquants d'influence de de de donc de de de de deniers et cetera et cetera de meurtriers ñun ñoo ko sos ñoo ci nekk. Donc celui-là ne peut pas être appelé parti politique ou parti d'opposition. Ils se battent vraiment pour la conservation, donc se victimiser, conserver vraiment certains avantages, etc. loolu du fi am. parce que ñii dañu war a jublu ci ay jàpp ak topp. mais absolument looloo tax ñi ñuy manifester wu ni mel ni ay naat ah oui xam nga naat moom benn affaire bu ne tëll foofu rek quoi donc nga dégg ñu yuuxu loolu génneew leen ci de. non non non leen ci il faut que citoyen ñoo war a jóg exiger que cette justice là soit fait au nom donc de des citoyens te ñu ngi ci li may wax ni ci la bokk gouvernants yi nag nañu xam ni waruñu fi nekk nag di di def la politique de l'autruche dugal bopp bi ci biir ñax yi vraiment donc ginnaaw bi yëpp nekk ci biti non ragal ni way bon gars yi bañ leen bañ leen taxé nii bon waaye dañuy fayantoo amul benn fayantoo lu jaar ci yoon du fayantoo yoon la tudd la nga xamante ne bu fekkente ne fayantoo la man man de Ali Mohamed Sega Camara su ma ko gisee dinaa leen wax ni li fayantoo la arrêté leen ko. pourtant am na ñu jàpp ne nag ñoom ci tànk yooyu lañ nekk ci mbiram Bah Diakhaté ak yeneen. mais c'est pas est-ce nga ci par exemple ñu dépénaliser diffamation dépénaliser ay offense au chef de l'État ak délit yooyu nga xam pour man euh, il faut encadrer ça. ok ce n'est pas que da ngay jóg rek vraiment donc lépp lu nu wax ci buñ la critiquer ñu naan offense au chef de l'État. dañ ko war a encadrer. que les critiques constructives il n'y a pas encore de rupture si si vous voulez insulter un président de la République mais il n'est pas destiné à être insulté. Okay. on peut le caractériser. ci jë jëf yi ni nga xamante ni moom lay def lu méngoowul ak yoon lu dëppawul ak sart lu dëppawul ak moral dañ ko war a dénoncer su amee ak doxalinam yi yooyu ça fait partie vraiment donc de la critique constructive warul mën a bokk dañu war a liim liim li nga xamante ni mooy offense à chef de l'État dañ ko war a caractériser liim ko ba mu set wicc koo ci jaar nga xam c'est du fourre-tout voilà lu nekk lañ ci dugg dañu ko war a xeet yii ku ko def ci kilifa réew mi yaa tooñ sa bopp dañuy dal sa kaw yoon dana dal sa kaw mais ginnaaw loolu tout le reste tout ce qui n'est pas interdit est permis. est mais APR su ñu waxee ne ñoom ni euh, Ousmane Sonko ak ñim àndal opposé woon ci Macky Sall noonu lañ nar a opposé woo est-ce que jëmuñu ci situation yu mel ni yi ñu. dañ ko dul dañ dañ ko sax munu munuñ ko sax def. ndax la. ils ne peuvent pas ils ne sont pas capables ces gens-là n'ont pas cette capacité-là okay. mentalement ils n'ont pas la capacité il vont vociférer ils vont crier sur tous les toits ba la bëgg a victimiser mais loolu du fi jàll parce que gis nañu seeni i ñaawteef seen jëfin jëfin ñaaw yooyu nga xamante ne leen moo la ñuy jël ma teg moo tax may naan lépp li nga xamante ne moo am ci seen i jëfin dañ ko war a wone ñu diffuser ko ba ñëpp a xam ne lii la ëllëg kenn du wax ni vraiment affaire fayantoo la day leer mais bu ngeen ko nëb nëbalee nëbb ko sénégalais yi bëgg ko jaar ci ay justice kese rek alors qu'il n'y a pas de diffusion vraiment donc de ces actes là xam nga am na ay dossiers yi nga xamee ne dañu commencé diffuser citoyen di ci jot ça c'est important rapport yeeg yooyu c'est important donc noonu la seeni actes yooyu nga xamante ne lañ def ñëkk a yooyu tout waruñu sax malaanu sutura waruñu ko teg ci seen kaw parce que ils l'ont fait exprès ils on fait mal ils ont vraiment fait mal à ce pays ñooñu dañ leen war a weer ci naaj ba ñu wow koŋ y part de ce moment là ëllëg kenn du wax ni vraiment ñii dañ leen di faagagal wala ñii dañ leen dañuy fayantoo loolu mooy solution bi mooy démarche bi bu ñu ko defulee rek quoi donc ñu tooñ seen bopp tooñ askan wi. su boobaa peut-être ñoo leen di may fu ñu yàqee seen naq. ah opposé wu lu leer nañu waajal élection législative yi nuyu dëkkmal yaakaaroon ne avec les 35 pour cent yi ñu amoon su fekkee Amadou Ba des na ci seen biir mun nañu créer peut-être la surprise aux prochaines législatives. Amadou Ba mooy kan. ah moo nekkoon seen candidat. problème baa ñu noonu. un candidat mi nga xamante ni vraiment ki <laughs> naa ni bot ni soulier alors fauteuil ci boppam amu ko fa. est-il membre de l'APR nee nañ voilà la question était-il membre de l'APR ou est-il membre de l'APR même bu fekkente ne loolu yëpp am na sax qu'est-ce qu'il représente dans ce pays un ministre premier ministre mais vraiment donc voleur de milliards kan moo ko war a wan a wóolu ci biir réew mi ba koy dénk vraiment même fauteuil de député franchement les Sénégalais doivent se regarder encore yow ki nga xamante ne laa sàcc ba nga xam ne kii sàcc na ma loo koy wóolute di ko dénk vraiment sa kees xanaa ñàkk ful ak ñàkk fayda loolu man moom duma ci dugg. kon yaakaar woo euh, législative yi mën a poser problème lan la yi ban lan lañ ci mën a mën a am ñoom suñ ci amee vraiment donc am ci juróomi député di franchement ma xam ne sénégalais dañoo généreux trop <laughs> ce parti là xaw ma organisation de criminels là non franchement. je ne crois pas waaw il faut que ñu xoolaat mbir yi bu législative bi suñ ko naree organiser mais ils doivent l'organiser y a aucun problème su ko jaree ñu ko organiser su ko jarulee aussi nañu bàyyi ba échéance bi jot. ok législative ci nar a taxawee ah, ci benn coalition. donc euh, docteur Aminata moom la ñu jiital ci coalition bi coalition bi mu ngi ci place am. donc euh, du coalition bu tasaaroo. déedéet euh, dafa am ku ñu jiital. Mhm. et ñu ngi ci ginnaaw ginnaawam ñu ngi ci wetam donc euh, ñu ngi ànd ak moom ci jàmm ak salaam ci yar ak teggin ak ci waxtaan. ci mhm. diisoo donc loolu laa seq ak docteur Aminata Touré. et qui la président donc du mouvement Mimi donc 2024. Euh, euh, lu ci aju dina ko teg ci kaw taabal bi ñu waxtaanee ko luñ ci jàpp aussi donc euh, moom moo koy fësal donc ñun ñu topp ci nga xam ne loolu suñu décision ñun ñëpp la comme nu mu koy doxalee ba léegi donc di ko nuyu di ko ndokkeel di ko masaw coono parce que lii mi nekk di def ci pour intérêt réew mi ci biir réew mi comme ci bitim réew mi loolu yëpp coono kese la donc euh, di ko masaw coono boobule. Mm. et puis euh, di ko ñaanal fan bu gudd bu ànd ak wér ak wérle et puis euh, yàlla tijjal ko ay buntu xéewal yu bare. Mm. pour que Sénégal man cee njëriñ. ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñu ngi doon teewlu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci waxtaan bi ak. li nga ñu fi indilaat comme information mais aussi comme analyse ak lecture ci tolluwaay réew mi. waaw euh, di leen gërëm di leen sant donc techniciens yi dama leen fàtte woon ci bi may ah. nuyoo donc euh, <laughs> sans ñoom euh, vraiment. yëf yi gis kenn duñu dee donc patron Racine maa ngi koy mm-hmm. nuyu. donc di mm-hmm. nuyu ñu ci des ñëpp. et donc di wax sénégalais yi. Mm. nañu taxaw temb jàppale nguur gi nguur gu bees bi. ci lépp li nga xamante ni bëgg nañu ko def ci lu lew ci lu baax ci lu rafet ci luy jëmale réew mi ci kanam ñoom ñoo war a jóg ñu taxaw ci gunge leen euh, jël ay initiative sax pousse leen pour que ñu mën a dugg xuus soobu ci yooyu mais en même temps ñu jël programme bi suñu tëggee programme bi ñu ne programme bi lii la naka sénégalais yi jël ñu dugg ci gox goxaan yi expliquer ko lii mooy programme bi nii lañ ko waree def ñu populariser programme bi ndax mu am ay reen yu dugg ci biir euh, réew mi dugg ci xool nit ñi nit ñi nangu ko jàpp ko yëkkati ko pousse ko mu gën a jëm kanam képp Séné bépp sénégalais bi nga xamante ni mar war naa mën a def dërëmam ci jéego yooyu naka def mu bañ a xool leneen waaye nag di wax ñi nga xamante ni ñoo yore nguur gi ñoo ko nank nanu def seen kéemtalaay kattan sénégalais bu ñu jooyati ci injustice nanu def seen kéemtalaay kattan bu sénégalais di def ay effort nañ ko reconnaître ñu gën leen yombalal affaire yi dund bi tàmbali nañ ko bëgg a wàññi donc nañ ci dugg mais du wàññi dund rek mooy régler problème bi nañu sóobu ci li nga xamante ne tous les secteurs de la production parce que économie réelle économie réelle mooy économie de la production balaa ngaa dégg usine dafa fekk am na li nga xamante ni loolu la nga njëkk voilà wala loo yar ba mu mat donc loolu la ci jub la ñu war a jublu donc ni ma koy waxee corridor céréalier yi parce que céréale dafa bokk muy ceeb muy dugub muy mboq muy euh, mbayeri bi ak yooyu yooyu yëpp dafa bokk ci suñu dundi nag foño yi tout ça la dañu war a yomb mais fi ñu ko war a béy nag dafa war a yaatu mm. suuf si yaatu na il y a yi nga xamante ne war nañoo mën a nekk des cultures industrielles des plantations industrielles fii Sénégal suuf nangu na ko donc nañu jublu ci loolu rapidement euh, pour que balaa cinq ans yi di daanu. et eh donc euh, dina fekk Sénégal ça devient un Sénégal vert un Sénégal beau à regarder mais à vivre. dinañ ci def euh, waxtaan spécial parce que premier ministre wax na ne souveraineté alimentaire ci la ñuy liggéey et dalal na ci xelu nit ñi kën ne dinañu ci yegg maintenant bu ñu gënee poser ay actes certainement dinañu toogaat fii ak yow euh, analyser ko parce que maa ngi wax sànq ne expert nga ci wàllu sécurité alimentaire jiite woon nga itam comité secrétariat exécutif bu toppatoo wàllu sécurité alimentaire ci Sénégal donc euh, on attend un peu de voir autorités yi ban direction la ñuy jël commencé nañu ak mbay mi euh, ci ni ñu subventionné jiw yi ne ñu peut-être yombalee yenn yi nga xam ne baykat yi dañ koy soxla mais am na certainement yeneen yoo xam ne war nañu ko def yu ñuy permettre ñu am matière pour mën a discuter ci faisabilité wu souveraineté alimentaire boobu wala sécurité alimentaire. Fatou dinaa ci sawar lool. Euh, donc euh, déjà c'est le premier point de notre programme politique. Mm. qu'on a adopté donc le 10 octobre 2000 2010. Okay. Euh, ci sunu instance yi. Mm. donc euh, on a parlé de souveraineté alimentaire. Okay. et nutritionnelle. yooyu mën naa toj yax yi il est bon d'ailleurs que ñu. sobu ci parce que dana am peut-être lu leen rëcc et eh donc en écoutant ce que nous allons dire peut-être que ça les intéresser ñu jël ko enrobé ko donc euh, ñun ce n'est pas parce que donc suñu programme là on doit se taire dessus déedéet dañ ko war a teg parce que ñoom ñoo nekk ci jal ji bu ñu ko defee Sénégal mën a jëm kanam ñun ñu migrer ci yeneen réalité lu wuuteeg loolu parce que dafay nekk suñu ginnaaw. suñu prochain waxtaan ci loolu lay nekk. incha allah te dinaa amaan mbégte lool dalal la ci télé Sénégal TV Ali Sega Camara maa ngi lay gërëm bu baax a baax nga jiite MPC mouvement pour la parti de la construction bokk ci. coalition Mimi 2024 ngeen ànd itam bokk ci coalition Diomaye président ndax seen euh, leader madame Aminata Touré moo nekkoon euh, superviseuse euh, ci wàllu élection yi tey ba léegi aussi mu ngi ci biir coalition bi gis nañu taxawaayam maa ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal yéen doog jàmm jërëjëf jërëjëf gërëm ñi ñu doon lu ñëpp gërëm toute l'équipe technique di leen dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro Sénégal Matin